alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain eh, mbokk yi noo ngi den ci waxtaan ak sa njegenaay wala xaritu jigéen ñi ñuy ñëw ci juróomeelu bind bi di la fàttal ni yow soxna si amoo xarit bu gën bii di wax ak yow muy waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi bàyyi ko woon ci di la digal ne bëril looy naafila bëril looy coobarewu di ko jege yàlla kon tey sa njegenaay mi ngi ñëw di waxtaan ak yow ci qadaa xawaaijil muslimin mooy fajal sa mbokkum jigéen soxlaam mooy ku ñëw diis la soxla boo ko mënee dimbale ko te yàlla tax sa moroom ñëw na ci kër gi amul dépense wala amul yére bu mu sol wala mu bëgg dàll wala mu am lu mu bëgg loolu mu am lu bëgg ne nga fajal ko aajo yooyu fajal ko aajo yooyu ndax kat jullit dañu koy dimbale su nit ñëwee ci yow laaj la xalaat nga conseillé ko su dee sëyam dafa am jafe-jafe nga conseillé ko ci mu jàpp sëyam bu fekkee ni gis nga ni jàpp sëyam mooy li moom bu ko war ci wax bu ko wax loo du def bu ko wax loo gëmul waaye saxal ko dalal ko bu ko iñaanee la mu am kon defal lu baax ci sa mbokk mi ndax borom bi subhanahu wa wax na ci suuratul xajj ne wafaalul xayra laallakum tuflixuun nee na dee leen def lu baax ndax ngeen texe kon def leen lu baax su ngeen ko defee da ngeen texe da jege borom bi kon li nga am bokk kook say moroom su dee da nga am wujju bu ko tere say bagage ndax borom bi ne wa yamnauna al maun sa xarit bi ci kër gi bi ci koñ bi yéene ko yiw waaye bul def ni jigéen ñi tey di def loo am di ko yëkkatikoo ci sa kanamu xarit di ko suufeel di ko jëw di wax ci moom lu bon loolu du yëfi jullit yow mbokk mu baax mii yow jigéen jii yow fexeel nga yor jikko yaa Xadija ak yaa Aïcha mooy fexeel ku ñëw ci yow na xelam dal su laajee xaalis nga jox ko defal su laajee conseil defal ndax nit kuy dimbale mbokkam kookee mooy nit ku baax ñëw na ci sahih muslim yonent bi sallallahu alayhi wa ne man naffasa an muminin kurbatan min kurabi dunia naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyama wa man yassara ala mucsirin yassarahu allahu alayhi fi dunia wal axira wa man satara musliman satarahu allahu fi dunia wal axira wallahu fi awni alabd ma kaana alabdu fi awni axiih yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ni ab jullit bu jigéen walla bu góor ñëw na wax la jàqam ak jaaxleem ak tiitam nga fajal ko ko muy bor bu ko toppoon wala natt bu ko dal wala bëgg-bëgg bu mu amul ci bëgg-bëgg ak tiitaangay àdduna yonent bi nee na ku ko teggil ak jullit ci àdduna ne yàlla teggil la ko yowmal qiyaama kon ndeke fajal nit aajo moo lay tëbloo obstacle yowmal qiyaam yowmal qiyaam nit ñi dañuy tiit ndax borom bi ni mu ko tuddee rek moom muy dëgg yowmun asir ala alkafirina gayru yasir sa morom daa bëggoon xijaab jox ko dafa bëggoon maquillage mi leen aal ko dafa am lu mu soxla dimbale ko boo ko mënee soxla bii nga ko fajal yàlla ne noté naa ko yowmal qiyaam bu nit ñiy tiit doo waaye yonent bi sallallahu alayhi wa ne képp ku yombalal borom jafeñ-jafeñ ba jafe-jafe boobee deñ ne yàlla dana yombal sa mbir fii ci àdduna ak àllaaxira ku am lu ko të nga fexe ba loolee deñ yàlla dana la ko defal àllaaxira nee na képp ku suturaal ab jullit fii ci adduna yàlla dana suturaal sa mbir alaaxira waaye daal yonent bi di ko jeexalee ci wax bu am solo ne wallahu fi awni al abd maa kaana al abdu fi awni axi ne yàlla day mi ngi ci dimbale jaamam feek jaam bi mi ngi dimbale moroomam soo dimbalee sa moroom sa boroom dimbale la kon loo ciy déggee boo dee wujje na baax ci sa wujj booy sëy baaxal ci sa jëkkër waaye baaxal ci say doom dëkkandoo yi baaxal ci ñoom kenn ku nekk fexe koo jëmbat yiw ci moom yowmal qiyaam muy tool buy meññ nga di ko jëriñoo kon yow sama jigéen yow soxna si yow xarit bi yow soppe si yow tànta yow maam dénkaane loolu di waxtaan ak sa njegenaay loolu lay dénk di la bàyyiloo xel bu baax ne lii kat dara gënu ko rëy ndax dénkaanal yonent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu.